dal leen ak jàmm suñu mbokk internet yi si seen revue des matinal comme ni ñu taamoo di ko defee rek comme xam ngeen ko tous les jours dañuy ànd ak yéen ci li nga xamante ne moom mooy revue des titres tey nag très rapidement rek damay nuyu ki nga xamante ne mooy Babou Ousmane Babou Ousmane ma nuyu la te noo man maa sant yàlla alhamdulilah di nuyu suñu internet yi euh, di wax ni kontaan dañu ànd ak ñoom comme ni ñu koy defee suba si jot di la nuyu également di wax ni tey moom ñaari téléphone nga yor. waaw ah, tey ñaari téléphone laa yor de damaa ah. laal iPhone laal Samsung mais loolu xabaar la ci waxaat ci kanam. <laughs> Ah, balaa ñu may balaa ñu may weer ci biir ah. ci ci ci ci sama mbokk internet yi grawul <laughs> tey nag dañuy jàll rek eh, ci li xët yi njëkk yi ci yenn kaay lu ñu xëyee ñu dooree ko ak ki nga xamante ne moom mooy l'observateur l'observateur nag dañuy tijjil seen page ak ki nga xamante ne moom mooy Mimi Touré nee nañ laa grande confession waaw c'est vrai que ni Mimi gëjoon nañ ko dégg euh, on se rappelle ni mu jugee ci conseil euh, économique social et environnemental coow lu bëri la fi bàyyi woon ci réew mi. Mm-hmm. ba am ñu jàppoon ni sax boo moytu ne doon génn ci la grande coalition benn bokk yaakaar ber daara ndax li ko waroon mooy avant sax mu jugee ci euh, conseil économique social et environnemental am na taxawaay bu mu fësaloon. Mm-hmm. amit kàddu yu mu doon yëkkati ñu jàpp ni dafa doon gêner un peu. Euh, la mouvance présidentielle notamment le président Macky Sall moo jóge ci génn génn ba mu ca génn def tekk ni parti ñu doon yaakaar ci investiture xëy nañ ko xalaat mais man dama ne euh, danañ ko xalaat am fu ñu ko investir mais man je me disais que le fait que elle soit un sax que ni ci local yi dinañ doon xalaat investir ko que ce soit Grand Yoff duñ ko xalaat parce que defoon nañu ko <laughs> ci jamono bi ñu ko defee woon jàpp gis nañ la mu juróon euh, bëggoon contre taxaw Dakar jamono ji mu nekkoon premier ministre jógee nekk ministre de la justice ñoo nekk premier ministre ñu boole ko ak Khalifa Ababacar Sall gis nañ lu mu jur donc ñu doon xalaat Kaolack bi mu fa daan dem am na ñu doon wane ni ñoom soxla wuñu Mimi Touré forcément ñi jàppoo ne dañ ko investir man jàppoo naa ne xëy na amuñu lecture bu baax bi maintenant bu taxee nag di wax euh, di fësal di dëggal boppam euh, je me dis que euh, en tant que politique am na ci am na ci am na ci am na ci droit te Mimi Touré quand même quoi qu'on puisse dire am na lu mu tekk ci partie bi nga xamante ne moom mooy APR bokk ñi nga xamante ne les membres fondateurs lañu. def ci lim ci def bokk ci nga xam te ne ñoo rédigé PSE quand même ak euh, taxawaay bi mu amee pour man élément bu am solo la boo xam te ne moo tax jusqu'ici gis ñu taxawaay buy war président Macky Sall que ni tey bëggatul ku mel ni Mimi Touré jàpp naa ni baax na ci coalition bi maintenant nag ban taxawaay lay am du Kaolack du Grand Yoff peut-être dina doon leneen. Mm-hmm. loolu ci xam dara fii ak ñu jëm. Aïcha mu mel ni Mimi ngi ñëw nag moom ren dégguñu ko fenn mm-hmm. dañuy jaar rek très ci li nga xamante ni moom mooy enquête. enquête nag euh, bu ñu fàttalee ñu ngi tijjee ki nga xamante ne moom mooy Barthélémy Dias dinañ baatu souffle sur les braises mu mel nii daal euh, démb ci bi euh, tribunal ñu ngi ko daan xaar mercredi bi. suba lay doon. démb la doon jàkkaarloog taskatu xibaar yi wax na nag lu bëri ah. yaatu na ci biir ci événement yi amoon en 2011 retracer un peu l'histoire wax bi ñu ko condamné ak bi mu defee appel ce qui s'est passé ba léegi. Mhm. xaar jëmale ci ñenn ñi mu jàpp ne xëy na ci justice bi tëddeewu njaaxaanaay. Mhm. jàpp ne aussi convocation bi est purement politique moo tax muy wax naan la bataille de l'opinion la bëgg a gagner mhm. il utilise bien ces mots la bataille de l'opinion parce que jàpp na ne xëy na ñu jàkkaar lool am na ko fi jaaroon ñu bay bayal mhm. ba ñu tëral ko léegi xëy na moom bay bayal boobu noonu pour ñu tëral ko lay bañ moo tax mu jàpp ni am na sondage boo xamante ni kilifa yi ngànk réew mi dañ ko def gis ni ci local yi nii mënuñu ko jaar fenn ba gañe ko xëy na moo tax ñu bëgg ko faat léegi bañ koo faat nag moo tax muy yuuxu woote suba la grande mobilisation et puis li ci li ci li ci yéeme mooy nee buy dem dafay ànd ak doomam c'est pour tontu ñi nga xam ne dañuy wax ne oui mobilisation dañuy di woo Sénégalais ñu dem te ñoom kenn du ci gis seen doom mu mën a suba dina ànd ak doomam ñëw mhm. maintenant on verra buy day bàyyi doomam librement ñu ànd ci mbooloo bi dem ko ñëpp di defee wala boog da koy escorter ci otom yooyu xamante ni garde rapproché mi na ànd dem te sans être inquiété loolu beneen beneen niveau mais quoi qu'il en soit wax naa la ko fi démb mhm. te nee naa la scénario boobu lañ nar a dund ëllëg su fekkee ni Barthélemy Diaz ak ñi mu àndal Ousmane Sonko Khalifa Sall woote nañ mobilisation ni ëllëg nañu dem parce que mbir yi du mbiru justice. Mhm. dañ bëgg a faagaagal boo xam ne jàpp nañ ni candidat la bu sérieux pour euh, la coalition benn Bokk Yaakaar que bëgg ko faat taxawaayu mooy ne Sénégal yëpp génn. Mhm. ngir won euh, président Macky Sall na ko la woon ca mars ba léegi mu ngi fi. Mhm. te ngay dégg ñoom seen kàddu sax ñu koy wax mooy ni tey pare nañ pour que combat bi lu mu la ñu def ko ci. ça veut dire bu fekkee ni niñ koy waxee noonu lañ koy jëmbalee. et que le camp d'en face ñoom it dégg nañ la waa COJER mm-hmm. ñoom it euh, ku mel ni Moussa euh, moo jiite COJER euh, COJER di Moussa Sow moom it woo ndaw ñi mm-hmm. ñëw ñu taxaw parce que jàpp nañ réew mi duñ ko bàyyi ak ñii ñuy wax lu leen neex mm-hmm. yow ñu woo ci wàllu yoon ngay taxaw naan mbiru politique la ça veut dire quoi ça que suba comme je l'ai dit on va vers un mercredi de tous les dangers mais Pape Ousmane gisoo ni parce que gis nañ ko fi ci Ousmane Sonko bi ñu ko fi woowee moo nuyu ci tribunal gis nga mbaboor gi nga xamante ne moom la woote woon askan bi topp ko ci ki nga xamante ne moom mooy Barthélémy Dias aussi bëgg a def pareil loolu noonu te lan lay jur ci xamante ne moom mooy euh, Sénégalais yi. mais instabilité surtout tout parce que li ñuy woo nit ñi du. Mhm. du woowu manifestation boo xam ne da ngay laaj say droit ñu encadré ko bu ñu paree ku ne dem sa yoon. Mhm. ñoom li ñuy woote mooy ni ki nekk ni ñu jàkkaarloo te loolu. yaakaar naa Ousmane sonk moo ko def ci seen bopp ndax moo ko yàgg wax ne président Macky Sall mii ma jàkkaar lool maanaam ku tëx la déggul droit yoonam ci ay yoon ak nangam. moom li mu xam mooy waaw dafa gumba tëxlu mu mm-hmm. xam mooy dóor tëj ku mel noonu nag nga xam ne bu koy def. Mm-hmm. dafay salfaañe àq ak ak yelleef doomu aadama yi yoonam ci justice nu ko neex la koy instrumentaliser. Mm-hmm. ku mel noonu soo bëggee jàkkaarloog moom dangay teg fële ay mbiru justice ay mbiru institution ay mbirul yoon ak nangam. jàkkaarloo moom parce que moom rapport de force la xam Ousmane Sonko a été clair depuis le début moom bu wax ak président Macky Sall danaan rapport de force. Mm. maanaam ni mu lay xoñoñalee di la tëj. noonu nga koy wanee ne maa ngi fi doo rey donc bu fekkee ni ñaar yooyu ñoo daje. Mm-hmm. forcément ku mel ni Barth ñu xam ko ak tempérament bu ñëwee yokk xar mi karaw. Mm-hmm. mais euh, ku baax fan lañu jëm te mobilisation bi ñu woote nii ça veut dire que waaye yeew yi yëpp suba. moom mm-hmm. ñu far Sonko ñu farak Khalifa Sall Barthélémy Dias ñi mu àndal ci coalition Yewwi mhm. dañu accompagner kii di Barthélémy Dias ak benn foule boo xam ne mhm. su fekkee euh, de l'autre côté ñu ngi ci daje ñi nga xam ne dañoo jàpp ne ñoom it waruñoo mën a yàq réew mi waruñoo nangu ko koy déstabiliser te ñoom dama leen di rappeler mhm. ce n'est pas à eux de faire la justice et de rétablir l'ordre du waa COJER ñoo koy def du waa Benno Bokk Yaakaar du kenn am na ñoo xam te ne te ci réew mi loolu seen liggéey Barth a été woote na mobilisation d'accord observer et laisser ñi nga xam te ñoom ñoo amee euh, mission wu rétablir l'ordre ñu def seen liggéey mais bu fekkee ni waa ay ñoom Moussa Sow waa Kogere ñeneen ñi dañ bëgg taxaw ne ñoom ñooy taxaw ni ñii duñ fi defee lii dama ne ñoom tamit ñu ngi créer désordre boo xamante tamit ils vont endosser la responsabilité bu fekkee dañu woo tamit sénégalais yi mhm. rawatina seeni militants pour ñu dem a jàmmaarloog ñii nga xam te ne dañ leen woo suba mhm. pour man li war a fay daay bi d'abord mooy sérénité te sérénité boobu ñu ngi koy xaar ñi nga xam te ñoo gànk nguur gi rawatina ndaw yi nga xamante ne tey ñu ngi boot ci ginnaaw ñu may dem wuy ji ñi parce que suba dañuy dem ci bis boo xam ne dana tàng te xam naa ni moom yow ak ñoom ramatulaay ak yooyu suba ko dëgg na leen mas en tout dinañ fekkee lépp incha allah waaye rek euh, Pape Ousmane mu mel ni xeexu mbedd bi daal ñu ngi koy bëgg a woote te xeexu mbeddoom xam nga ne wóorul tous les coups son permis euh, doy na waa dal en tout cas très rapidement ñu jàll ci li nga xamante ni moom mooy les échos les échos nag ki nga xamante ni moom mooy njiitu réew mi Macky Sall nee nañ Macky rappel aux soldats léegi nag ñan ñooy soldats yi. waa xam nga loolu tamit lu ñuy ñaawlu la ce qui s'est passé à à parce que je ne peux pas comprendre euh, Guirassy ak fi mu jaar yëpp quoi qu'on dire tey Sénégalais yëpp xam nañu di nit koo xamante ni quand war nga ko mën a boole euh, ci politiciens yooyu wala ci homme politique yooyu nga xamante ne dañu am ay écart de langage un Guirassy les l'écoutes tu sais que c'est un homme cultivé menacé wuñu defuñu dara dañuy ñëw pour exercer seen devoir exercer seen droit mais moom laa lay wax ni cest dire gis nga tey Sénégal dafa nekk ci ay fragilité yu doy waar yoo xamante ne pour man ñi war a rétablir ñoo war a gën a seree ñëpp mais bu fekkee ñu war a rétablir l'ordre ñoo gën a ñàkk am sérénité ñëpp mais lii lay jur man je je ne vois pas pourquoi les forces de l'ordre attaqué ay ñoom giraas yi ak ñoomu àndal def leen li leen def mais loolu sentiment de révolte bi muy yëkkati jëmale ko ci ñi nga xam te ne ñooy takk der yi mais loolu dafay wéy te bu wéyee lan lay jur mooy li ñu yàgg wax ni tey police ak gendarmerie dans l'exercice de leur de leur fonction souvent dafay am abus te pour man li war a mën a dindi loolu mooy que ne à chaque fois que ñoom ñu taxaw ci def seen mission vraiment nañ ko def de manière à ce que ñu épargner le peuple ci maanaam xeet yi nga xam te ne dañ koy am te booba sentiment de révolte lay indi te dégg nga Guirassy dina ñëwaat moom ak ay ñoñom bu fekkee ne nag dañu war a réitérer la même chose li muy jur dafay doy waar yaa ngi dégg au au euh, niveau central waaye Yewwi muy Ousmane Sonko muy Khalifa Ababacar Sall ñaawlu ko suñ ko booleeg li nga xam te ne moo war a am suba yu dul jeex la ñu nar a jànkonteel fii ñu jëm ci local yi bu boobaa dañuy sàppe li nga xamante ne vraiment moom moo ñu war a dajale le 23 mooy ñu tànn sénégalais yi gën ci suñuy gox pour man bu ñu yemee foofu ñu confronter ay programme que nit ñi mën a am lisibilité xam réellement ci euh, euh, élection yu jëm lan la lan mooy suñu devoir taxawaay bañ la ñu am tey amul benn sénégalais bëri na ci ay sénégalais boo leen laajoon ci local yi ñu jëm lan lañ ci xaar tànneef bi ni demee boo jëlee majoritaire lan la proportionnel lan la. Euh, maanaam suffrage direct bi ñuy wax ni cest dina jafe ñu am lisibilité ci yooyu te pour man loolu moom mooy charme euh, local yi mooy sénégalais xam gindee ko ci mun a def les bons choix mais bu fekkee ni loolu yëpp li ko émaillé mooy ay xeex ay ay ay sàndante ay waxante lu ñaaw ay ponkalu magum jëmm taxaw di waxante wax yoo xam te ne vraiment pour man laaju ko ci penc mi ku mel ni Ramatulaay du ko def te pourtant xale la donc yooyu war nañ ci mun a bàyyi xel forces de l'ordre au service de la République et non au service de quelqu'un qui incarne la République force de l'ordre ay institution la xam xamul nit ki dafa xam ne nit ki mu ngi fi ngir doxal institution bu demee ba doxalu ko ñoom indi nag ñoom seen taxawaay parce que ñoom i sert la République et non des hommes parce que mooy li ma wax xam nga ñu ngi préparer l'opinion c'est-à-dire instant bi bataille médiatique la boo xam te ne ñaari camp yëpp ñu ngi koy mëne mooy ku ci nekk yaa ngi tuuma sa morom ne ci élection yi jëm yaa ngi def ay mbir ngir gagné ko à l'avance te duñ ko nangu soo xoolee liste yu bëri euh, ci waa yi daanaka dafa close ci ay gox yu bëri te loolu gis nga ni jafe-jafe la parce que ci période contentieuse bi lañ toll bu ñu génnee ci période contentieuse bi rek ci la ñuy publier list ñuy jàpp ni xëy na ñoo jëm ci jongante yi mais avant boobu gis nga coow yi muy jur moo tax ma jàpp ni en réalité dafay feeñalaat leneen mooy ni euh, dafa am ci c'est mon sentiment. que ni li ngay gis ni yëpp ci dérive yi ñuy nemmee ko ci homme politique yi xoolal ci diggante bi ñu commencé investiture ba ñu koy jeexal façon njuuj njaaj façon ñaawteef boo xalaat ci kaw suuf a gis nga ko ci ñenn ci homme politique yi ñu doxal ko ci investiture yi c'est-à-dire dañoo wone li ñu yàgg ñaawlu mbubb mi nga xamante ne politique def ko sol di mbubb mu wor wax lu dul dëgg njuuj njaaj sàcc alal dige di def ay yooyu yëpp fay na ci investiture nag pour man nag la meilleure manière de sanctionner xeetu pratique yi mu ngi bàyyi ko ci askan wi pour man askan bi seen bopp ñu war a ubbi seeni gët di xool les uns et les autres li ñuy doxal ci penc mi rawatina ci investiture yi pour que au soir wala le jour du 23 janvier que ñu ne diw li ñu gis muy def ci penc bi te dëppoo ak suñuy valeur ñun xaar ñu xeetu politique boobu sanctionné nañ ko mooy ni duñ ko jox benn voix mais malheureusement ce qu'on voit au Sénégal mooy ni les médiocres ñoom la ñu ubbil euh, euh, maanaam euh, fans club am ay supporters am ju leen jàppale di leen défendre te xola ñooñu boo leen déggee ñuy wax saaga ak wax ju ñaaw wax ju bon lañ nekk ci penc bi pourtant ñoom la ñuy ériger en modèle cette société wala une partie de cette société bi jox crédit ñooñu la comprendre ñooñu fan la ñu nekk parce que kuy wax wax ju ñaaw di jëf-jëf ju ñaaw ak ndombal tànk bu mu mën a am ak it kilifteef bu mu mën a woote ci réew mi pour man su warook li ñu jàpp ni mooy suñu valeur rek automatiquement peuple dafa war a taxaw ngir mais bu fekkee se même peuple ñooy ñëw derrière kooku di ko dooleel di ko tàcc comme on l'a vu hier ak Barthélemy Diack ci écart de langage jëm ci xëy na koo xamante ni sax yow imagine mun ngaa wax lu ne mun ngaa wane adversité bu ne mais koo xamante ni génn na àddina Ndiaga Diouf yow ngay wax ci moom ay wax yu ñaaw yooyu kaddu yi ak façon bi nga ko waxee man pour man vraiment un leader devrait se passer euh, dafa war a surpasser wu war a bañ a génne yenn yi d'autant plus que di ko teg ci koo xam ni génn na àddina nga gis derrière ñoo xamante ne nee nañ ndeysaan mili ay militants lañ di ko ci tàccu ànd ak moom je me demande aujourd'hui le militantisme war nañ mën ko questionner bu fekkee ni askan yëpp dañoo d'accord ni lii mooy suñuy valeur ku doxew leneen lu dul lii ñu war la ko rejeter sa lépp pour man lii du am waaye bu fekkee c'est même c'est le même peuple qui après derrière applaudissent les mêmes personnes qui l'atmosphère pour man loolu aussi benn benn benn benn incompréhension la boo xam te ne man xawma lu muy lu muy lu muy nuru mooy la ñuy wax léegi vers un mercredi moo tax dinañ ko suivre de très près même bu fekkee appel bi day wéy mooy ñi nga xam te ne ñoo war a fexe ba suba ñu dimbali yeneen sénégalais yi nga xam seen yoo nekkul ci lii mooy sénégalais yooyu nga xamante ni saa yu ñu xëyee ñu ngi def seen kem dalaay kattan di dem doxi seeni soxla liggéey seen liggéey delluwaat te jàmm rek tax leen a jóg ñooñu ñooñu bañ leen faagaagal Mariama ci seeni exercice seeni liggéey am na solo te loolu ñi ci war a dimbali. mais am na ci mais bien sûr am na ci sax ñoo xam ne sax su amee duñ liggéey parce que te ouais bien sûr bien sûr ñoo xam ne sax duñ liggéey ah duñu liggéey parce que dañuy ragal ne bu ñu demee ah mën nañu mën nañu am ay jafe-jafe diggante. Euh, bu jógee Mermoz Sacré-Cœur euh, dem ba palais de la justice euh, palais de justice foofu yëpp mm, ay yoon yu doy waar lay doon waaw mm. waaw lii moom suivre actualité te waaw xel surtout meññee ñoom ñoo njëkkoon a yëglu doon wax ni depuis un certain temps ça doit faire un an wala mu ëpp ko que ñoom dañ doon jaayee à perte mooy blé xam nga blé bi tey moom la ñuy tëggaat mu jox ñu fariñ farine boobu la boulanger di soxla ngir defar mburu blé boobu nag yàlla dafa def ni ñun bàyyee wuñ ko suñu réew yi parce que fa am yu muy laaj ngir bay ko donte nag je dois préciser que ni ISRA muy institut sénégalais de recherche agricole am nañ ci ay recherche yu am solo yuñ ci def ci est-ce que Sénégal waru mën a sóobu ci di bay blé en attendant nag ñoo xam résultat yooyu lan lay joxe ndax dina mën a nekk am déet loolu la ñuy souhaité ngir que jéggaani bi ñu jéggaani di ko jëndi jàppal ni jéggaani bi ñu jéggaani di ko jëndi c'est des milliards déjà déjà man gis naa benn étude boo xam ne 2009 2013 on nous parlait de de 10 pour cent de hausse de l'importation jëm ci blé bi te 10 pour cent yi soo xoolee li ñu ci ay tonnes on parlait de 500 000 plus de 500 000 tonnes yoo xam ne bu ñu koy jënd par an xam nga lu ñuy dikkee ci koppar on parlait de quatre-vingt-seize milliards de francs CFA imaginel li ñuy jëndee blé quatre vingt milliards de francs CFA blé kese te dara amul léegi meññee yooyu nga xam ne ñoo koy jëndi yokk bi mu yokk ca bitim réew ñoom dañu jàpp ne kat yokk bi mu yokk ca bitim réew ñoom it war na leen mën a may yokk boobu tamit ñoom ñu dolli ko ci pour que au moins li ñuy jaay ñu mun ci am bénéfice mais fekkee ne muy yokk bitim réew yow nga koy jënd ci yokkute boobu ngay ñëw ñuy maintenir état maintenir même prix bi mooy le sac ñu xam ko ci seize mille et quelque nga xam te moom la ñuy jaayee ñoom ñu bëggoon ne nañ ko yóbbu ci dix neuf mille et quelque ñu dajewoon ak état jubbuwuñ ci ñoom ñu ne mënuñoo continuer di jaayee à perte que ni fi mu ne nii seen secteur mu ngi euh, à l'arrêt euh, te c'est des milliers d'emplois il faut dire que le secteur secteur bi boo boolee tey boulangerie ak ñiy yëngatu ci wàllu meunier yi parce que ils sont sept au Sénégal sept yooyu ñi ñuy employé c'est des dizaines de milliers d'emplois yoo xam te war ko négliger ñoom ñu jàpp ne loolu bu continuer mënatuñu fay salaire mënatuñu euh, vraiment taxawaay charge yi nga xam te ne am nañ ko dina leen jafe sàkkoon ci état mu nangu hausse boobu waaye tamit boulanger yi da dane ne su fekkee da ngeen ñu bëgg a jaayee saako bi jëlee ko ci seize mille yóbbu ko ci dix neuf mille da leen woon le lendemain euh, Ramatulaay mais di jëndee mburu kilo bi cent cinquante dinañ yokk fukki dërëm muy deux cent léegi loolu nag état comme du bëgg yokkute boobu parce que yokkute boobu bu amee dafay delluwaat ci askan wi seen bopp ñu naan non comme niñ naan cherté yi dafa bëri xam nga du ci pain bi rek te pain bi xam nga pain pain est-ce que xam nga ni mburu daaneel na nguur jooyu mburu no mburu moo am bayre seetlu li ma la non gisoo mu ngiy fuddatu day fuddatu nii yëpp parce que mburu ni mu waroon def ci yaram bi loolu la deful tey moo tax bayre boobu mburu am mooy war a nguur da koy bàyyi xel du ko bàyyee noonu ñu libéraliser ko xam nga depuis boobu ba léegi yaa ngi dégg acteur yi doon sàkku ci ñu libéraliser secteur li tax état téye ko ba léegi parce que xam na la nekk ci mburu mburu ak ndox duñ ko foowee ci réew parce que ay denrées yoo xamante ne nit ki moom lay gën a jëfandikoo la nit di gën a jëfandikoo nag état dafay dafay réguler parce que buggul ëllëg mu bàyyi ko yokkute bi am ba nit ñi génne di ñaxtu te ñaxtu boobu mooy gën a doy waar ñaxtu politique yi parce que ku dem ba amatoo loo lekk wala mu jafe la boobaa question de survie lay doon te loolu war nañ ko mën a bàyyee xel maintenant nag négociation yi man fa laa jeexale ci lii mooy ni état ci boppam moo war a am fulla ak fayda comme niñ ko gisee am na réew yu bëri yoo xam te ne mais meññee yi dañoo yokk seen seen seen seen seen seen seen seen i kii maanaam farine bi mais dafa mel ni Sénégal rek moo ci des en am na réew dama bañ a juum mais je l'ai vu hier ou avant réew yoo xam te ne ñu ngi ci yokkute boobu maintenant pour dire quoi état moo war am fulla ak fayda waxtaan ak gaañ yi mais tamit respecter engagement am mais souvent li ñuy gis mooy ni ay concertation yoo xam te ne état da ciy woote mais vraiment wax-wax yoo xam da ko rafetal nii rek bu génnee du ci ñëwaat te ñoom ñu ngi instant bi ci seeni logique mooy ni élection yi la ñu tal lijjantiwuñ leneen Aminata Assome Diatta moom mooy euh, ministre du commerce ma ngay yootu mairie bu bu bu Kër Massar waa ñun tamit dañ leen di adoubé parce que quand même quoi qu'on puisse Sénégal te ONU sax def ko seede jëmmal ko wax ni bokk na ci troupe yi gën a wone xarañte ci yenn théâtre d'opération yoo xam te ne dañ leen fay yóbbu te li war a tax ñu war leen gën a mën a kañ gën lañ war a gën a bàyyi xel mooy ni tey soo seetloo àdduna bi dafay bañe ci lu ñu woowee terrorisme don réalité en Afrique te boo xoolee ceinture bi war Sénégal yëpp daanaka tàkk na Mali gis nga ko gis nga Guinée gis nga même Mauritanie gis nga la Sahel nga dem ba fi nga xamante ne mooy euh, euh, ni ñu ko waxee sax Burkina Faso yooyu yëpp nag nga xamante ne tey ñun frontière bu ñu ko wax Afrique gis nga wax la rek mais vraiment amuñu lu mën a téye suñu frontières yi maanaam amuñu euh, aux nouvelles formes de menaces yi nga xam te ne tey terrorisme daf ci bokk nga xam te ne tey boo ko jëlee ay paccam dafa bëri ci formam ak ci ñi nga xam te ñoom ñooy les ennemis ni ñuy mën a ñu ñu amee possibilité mën a infiltrer dugg def seen tojaange génn il faut que armée tamit am ingéniosité boobu noonu. waaw. Euh, Alioune le grand Alioune Cissé a ah, nee naa la Cissé la sant waaw ah, te xam naa ne incha allah ren dinañ fexe ba euh, coupe bi ñuy xaar soxla ko lool gëm naa ne ren dinañ ci teg loxo waaw te il faut ñu wóolu euh, li nga xamante ne moom mooy équipe bi c'est vrai que ne di ngeen gis nag cette fois-ci parce que am na ay am na ay absent dina am am na ñooy blessé am na ñoo xam ne dañu absenté mais na am ñeneen ñoo xam ne ñoo leen remplacé dañuy def ay combinaison yoo xam te ne on va l'essayer te xam naa ku mel du ma ko ci jiitu mais yéen da ngeen gisee seen bopp ah dina am beneen Cissé Cissé boo xam te ne démb maa ngi wax ni bëgg naa ku mel ni Pape Abdou Cissé ñu boole ko ak Kalidou Koulibaly ah euh, dina am lu mu jur euh, dina tax sax ñenn ñi nga xamante ne ñu ngi xalaat ni euh, l'autre là rek moom moo ci yey nañu numéro 8 bi waaye maa ngi fàtte euh, bi euh, xam naa peut-être na ma revenir que ñu xam ni tey ci tanière bi on a des joueurs de valeur yoo xamante ni il faudra juste faire confiance à Aliou Cissé que ni choix yu muy opérer c'est dans le seul but de gagner et que pour man loolu mooy compter même si su fekkee fond de jeu am na solo ak yeneen yeneen. Mhm. loolu on ak ñi nga xamante ni xëy na seen xam-xam màcc na ci wàllu sport ci seeni analyse ñu ñëw ci mais ce qui est sûr mooy que ni man am naa confiance ci Aliou Cissé ak équipe bi muy teg ak schéma yi nga xamante ne dina ko rëdd ci match bi. Mm. koo xamante ne war na mun a jaaxal euh, ci ci ci ci compétition yi nga xam ñu ngi koy waajal rawatina Qatar ak Coupe d'Afrique bi war a am ca. Mm. Cameroun. ay ci mi ngi noonu am na solo lool dañuy rek souhaiter li nga xamante ni moom mooy bonne chance suñu lion yi di leen ñaanal match boobu loolu ñu jëm Pape Ousmane tey nag loolu lañ leen andiloon ci li nga xamante ni moom mooy revue des titres de ce mardi di la gërëm di la sant kontaan bu baax ci yow xam naa nag tey ndekkiwoo mburu waaye comme mm. si nga sant du la metti ñun turu yàlla la dundee xam nga ah. macha allah dafa bëri tur bi daa màgg tur bi daa màgg sant bi daa màgg 99 noo bëri de 99 mbir nga mm. koy mm. dundee xam nga loolu rek ëpp na ci journée centième bi waaw waaw loolu rek dafa ëpp ci journée ah, macha allah boo ko boo ko boo ko boo ko doyloo daal mën nga cee dund weer loolu la yàlla def di gërëm internet yu ñuy bàyyi xel